donc Bounama Sow mandataire national du MPG dirigé par le président Cheikh Alassane Sen. Nous nous sommes rendus donc euh, en début d'après-midi ici au Conseil constitutionnel euh, dans les locaux du greffe pour déposer un recours et contester ou réclamer euh, contester surtout je veux dire notre élimination Euh, de ces courses. Souvenez-vous quand il y une semaine, nous avons été reçus par la commission de contrôle des parrainages, ou on nous avait signifié, euh, en tout cas notre élimination de la course, à travers ce qu'on avait appelé, ce qu'on a eu 20 900 euh, au fichier. Nous nous sommes rendus donc aujourd'hui ici pour euh, contester ce que nous avons considéré euh, comme du vol. parce que nous avons procédé à un contrôle interne par nos informaticiens. Il s'est avéré que l'informaticien du Conseil constitutionnel a délibérément mélangé les filiations de nos parrains que nous avons dûment eues pour créer une cacophonie et ce dans toutes les régions. Nous donc, euh, nous considérons cela comme du vol et que le vol étant naturellement euh, la soustraction frauduleuse de bien appartenant à autrui, nous sommes venus donc contester pour réclamer ce bien qui nous appartient et que nous avons considéré comme, comme du vol et qui nous a mis hors de course. Je voudrais également saisir cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie ce modus operandi archaïque, féodal, lâche, bête et méchante qui consiste à éliminer des candidats d'une course présidentielle et à choisir ses propres candidats. Je voudrais également dire que euh, ça ne fait que nous motiver dans notre engagement dans ces élections qui se profilent à l'horizon, euh, nous avons essuyé le plan A certainement, mais il nous reste le plan B et que nous allons participer activement à cette élection pour bouter ce régime, pour défenestrer ce régime qui n'a d'autre jeu favori que de voler des parrains. Alors, Merci quel, beaucoup. Quels moyens vous avez, euh, quelles preuves vous avez déposées pour euh, valoriser aussi votre recours Écoutez, nous avons eu, je vous ai tout à l'heure dit, dit, de mon propos, que nous avons plus de 20 cas d'inconnus au fichier. Nous sommes venus preuve à l'appui. Nous avons tiré, nos techniciens, nos informaticiens ont tiré les documents qui appartiennent à des Sénégalais qui se sont régulièrement inscrits pour avoir leur pièce d'identité et leur, euh, euh, être des membres du fichier électoral. Donc ce sont ces preuves matérielles que nous avons déposées tout à l'heure au bureau du greffe. D'accord. Euh, ci wolof rek da ngeen ñëw déposer seen recours devant le conseil constitutionnel est-ce que waaw ñoo xam ñoom ñoo xam parce que ñoom ñooy def seen yëf parce que léegi rek bi may génn suma informaticien mu ngi ma naan suñu kanam lañ ko waroon defee donc comme mayu ñu ñu loolu mën nañu njort dàq xalaat ne amaan na du mujj fenn waaye nag loolu daf ñuy dëggal rek dafay yeesalaat suñu taxawaay bi ñu am ak énergie bu ñu am pour xeex li nga xam ne sàcc lañu ko tuddee parce que dañu dañu jël suñu ay parrain bi ñu déposé ba pare dañu jël suñu ay parrain yu ñu nañu am ngeen lu toll ci ñaar fukki junni ci ay ñoo xam ne fichier bi xamu leen te loolu c'est faux bi ñu contrôler ak suñu ay techniciens gis nañu ko ne que informaticien conseil constitutionnel dafa jël filiation yi jaxase ko def ko ci région yëpp ba mu jural ñu loolu mu génn ñu ci course bi te nag du ñun kese lañ ko def am na ñoo xam ne sax biñ ñëwee dañ leen ne yéen seen clékat appareil bi munu ko lire kon xëy na ñun sax ñoo tane ñooñu waaye li ñu ci mën a wax rek mooy. sàcc mooy jël loo xam ne da nga ko jël ci ginnaaw nit ki te yéegu ko loolu la ñu ñëwoon tey pour contester ko wax ko ne nañ ñu ko delloo ndax loolu ñu ñu jëlal moo tax tey ñu génn ci course bi waaw jërë ngeen jëf merci beaucoup